Aly Niane xam nga ko. waaw Aly Niane Aly ca daf ma ni. ne Aly Niane daf ko ni. jamono ji ñu toll de. jamono ji ñu toll day boo ci dee gis ku mel ne Serigne Fallou. boo ci dee gis ku mel ne Serigne Fallou. ci dee wut ku mel na Serigne Fallou boo ci wut ku mel ne Serigne Fallou. doo ko gis doo ko gis. mu ni gor la. mu ni Serigne Fallou gor la. kilifa la kilifa la. yàlla bu baax yàlla bu baax la. من كل صاح دفلا دفل دفلا من ما واو من ما واو بني من ما الخميس بني دنا دم دنا دم جبر وسن نكو سما بيك سما جبر وسن بيك سما جبر وسن بيك جوخ خالص مو تيب جوخ ما تيب جوخ ما دلسي ما دلسي ما دلسي وات نكو وسن waaye nee su ma ko joxee rek. nee waaye bu nee bu moom Aliou Niane ne bu ko waxee sëñ Fallou rek. mu daal di may jox. ma am moom lu toll ci ñaari at. ma am moom nag lu toll ci ñaari at. rus nag rus nag. daal nit ku baax a ngi nii nag. woo sama doom woo sama doom. ni ko man kat ni ko man kat. dama bëgg a seeti sa baay Fallou. dama bëgg seeti sa baay Fallou. te bëgg ñu ànd. te bëgg ñu ànd. suñu demee nag bu ñu demee nag. dama naan yow laa ko tudde man su ma nee Fallou. nang ma ni Mbacke. ma ni Mbacke. xale bi ni waaw góor gi xëy si ci kër gi fu mu wooyee xale bi rek xale bi ni mbàkke mu ni kii mbaa du rëcc mu daal di ànd ak moom dem ca saalu sëñ Fallu ñu toog di waxtaan di waxtaan ba mu yàgg mu ni doom ji ni pat mu ni moo fàllu doom ji ni pat waaye kii xanaa du fàllu yàlla waxal mu nga man damaa tudd fàllu sëñ fàllu ni ko waaye tuddal fàllu ba génn kooku kooku kan moo gën a baax ci àdduna ah. wàllu mooy wàllu yaari maamam Serigne Fallou baayu meen baayam baayam ay nijaayam ku sopp Serigne Fallou baayu Fallou yëngal na ku dul. nee moom sëñ Fallou yëngal na sax ku moom mi. xakiim xakiim la. xakiim bu bëgg la. nee te dañu wax ni. ku am xikma. am nga loo xam ni. mun loo ko jàngi fenn. te moom nag sëñ Fadilu Mbàkke moom la amoon. ne boo doon nettali ay mbiram. da nga cay ree. waaye lépp kéemtaan la. dafa ni waa ji waa ji dafa ni ko dama bëgg nga ñaanal ma mun ko luy saajo mun ko damay jaay loo ci bëgg lu ma jaay rek mu jar mun ko loolu rek laa jàngoon nag googi ñaan moom rek laa jàng tàllalal waaja tàllal mu ni ko jaayal lu ñëpp bëgg jaayal lu ñëpp bëgg te wax ñëpp mën loo jaay mu jar seetal li seetal ci wax allahu akbar la ilaha illallah wa tabaarakallaahu yooyu yëpp nag yooyu yëpp nag ay jaar jaar la yoo xam ni xew na fi fi mag ñi mag ñi ñu di ko nettali ñu war caa roy ñu war caa roy